Ahmadou Khadim jàkka géej Ahmadou Khadim Lambarna Ahmadou Khadim Galwa Ahmadou Khadim juma ju mag ji Ahmadou Khadim taaliba yu mag yi Ahmadou Khadim ki gëm yàlla Ahmadou Khadim ki ko defal lépp Ahmadou Khadim ki jël léppam ak féppam ak ñeppam jëbal ko ko Ahmadou Khadim dama ayaati من آيات الله على داخل جنان الله مهما مهمة خنا نفوسا ولسوايا سقه تنسيسا نجاك برم تبا نجاريم باي شيخ محمد الفاضل باي شيخ عبد النهار باي شيخ مول متفى يقود لي ولا يقود مني الى من شفته بيخت مني خادم رسول نجاك برم تبان لا اله الا الله لا اله الا الله

laa ilaha illallah alhamdulillah wasala abada ala rabbil bismillah wa tabara laa ilaha illallah xadim rasul ndak borom tuba njaaram borom pakk mbarkam ngene laa ilaha illallah laa ilaha illallah borom fay nabi jaay borom faraxat njarnem ngene laa ilaha illallah laa ilaha illallah amdi xadi fall amdi yaasin fall amdi nogay fall bakuma cheikh ibrahima fall laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah a dégg dégg yëkkati laa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عندي وسكري لمن كل بيسارات لو أريد أن دون سقط انتصر سارا jotaay bii buñ xel yëpp dellu ci Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaye fa tabarakallahu boo xoolee jataay bi sa xel dellu ci maam Seex Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mel na ni jataay bi yéen ñi koy seetaan di ko déglu xam ngeen ne la daan xew xewet na te mooy tukkib jàmm ak salaam mu nekk ngi nga xam ne ku tedd ki Seexul Xaddim Seexuna Ahmadu Bamba nekk na ko ci réewum gànnaar ci pàkk bi ñuy wax Sarsara loolu moo doon jataay bi fa tey ji nag dëppoo fatarakalaaw di la treize di alxames nga ak ci pàkk bi nga xam ni fi leen fekk jàmbaar jii di kenn ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mu di Serigne Cheikh Roqee Fall ibnu Serigne Cheikh Fall Baye Góor ibnu Cheikh Modou Moussa Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaye nag ki ko seet tey mooy kan soxna maam Isa Mbàkke ahlu café bintu Cheikh Modou Fadi Xëri moom Serigne Massamba moom Cheikhul Khadim Cheikh na Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul Serigne bi naam Fall ñu ngi lay wax ahlan wa jàmm xamaa danañ yëkkati kàddu gi jëbal ko sëriñ Abdou Lahad Dieye mi xam moo yore kàddu sonx si di loxo du jooram di léppam ci fànn yëpp ci wet yëpp root na pàkk bi ñu dëng mel muy Sarsara Cheikh Abdou Lahad Dieye mu ko joxe kàddu gi dina présenté soxna bi sa mbàgg ahlu café bi muy jóg ñan la ndalan muy njabootu sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim waaye leen ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp kon Fall ma dégg nga ma ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jaajëfal say coono di la ñaanal sofan yàlla gudd ndax lu dubba sa mam je Cheikh rayma Fall ñor na la fekk na li ab tukki nga yaata liggéey cheikh Serap Fall sa keur mam waye bi ko déggee da ngaa dagg te lepp wa ñewat fas yéene insala doxali ba li wey ci digul sa bay ba baax ba serigne Cheikh Fall jëm mi xama tok jotaay sa maam je Cheikh mudou Moussa Fall waye tok jotaay sa mam je mam Cheikh Ibrahima Fall kon dal mbolo mi nono ma fi jox kaddu gi serigne Abdoul Ahad Dieye waye di ñaanal sëriñ Cheikh Roqe Fall ndigal gayna xel kom yalla na fi yag lol te wer ci dara ji ko tedd ki Cheikhul Khadim Soxna Ahmadou Bamba ma ngi xol legi ci ginaawam serigne Ahmad mbake serigne Ahmad Fall moom sëriñ Cheikh Fall bàyyam góor ne léppam di rakam mel na ni seen naa ko jotaay bi kon li ci des ci présentation bi incha allah bu suñu jëlee kàddu ñàkku ne ñi ma àndal am na fu lay feeñal ko ndax fataraka la ay rakam noonu ay bokkam noonu te du leen suul du leen nëbb du maasale Abdoul Ahad Guèye gaa ngi nii alhamdulillah rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah barke xaadimu rasul barke maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin Serigne Cheikh Ndigal ñu ngi lay nuyu ci turu soxna maam Issa Mbacke bintu sëriñ moo Modou Fati Xari sëriñ du Fati Xari ibnu ma Mazamba ak bokkam yu baax yi nga xam ne ñoom la àndal xam naa danañ ci tudd ñenn rek Mbacke ngir ñoom ñooy suñuy sang suñ leen tuddee rek ñëpp a ngi ci biir mi ngi ànd ak soxna Ndey Mbacke moom soxna Bintu moom sëriñ Mbacke Madina mi ngi ànd ak. soxna Aida Mbacke mom seigne Abdou Aziz mom Cheikh Mamadou Lamine bar mi ngi and ak soxna mam Xari Mbacke mom seigne Abdou Koumba souna mom Cheikh Mamadou Lamine mi ngi and ak soxna Ndey Seyni Mbacke di rakam ñu bokk seigne Modou Fati khari mi ngi and ak soxna mam marem Bousso muy doomu soxna mam Mati Mbacke mom Cheikh Mamadou Fadal mi ngi and tam ak soxna May Bousso mom seigne Cheikh Bousso mom seigne sa Bousso di mbokam soxna Jaara mi ngi and tam ak rakam soxna maam jaara buso ñooñ ñooy sang yi nga xam ne ñoom la àndal mi ngi ànd ak soxna say Mbàkke moom sëriñ Abibu mi ngi ànd tam ak soxna faamaloo di jëwriñu Masaalikul Jinaan nekkal soxna si fële ca Ndakaaru ànd tam ak soxna Rama moom sëriñ Abdoulaye Fall Ndar sëñ Modou Ablaye Fall Ndar ànd tam ak mbokk yoo xam ne ñu ngi bàyyi koo Thiès ñi bàyyi koo Fatick ñi bàyyi koo Louga ñi bàyyi koo Diourbel ñi bàyyi koo Ndar ñu nekk ci délégation ñi bàyyi koo Ngaay ànd ak ay jànkatu xasida ànd ak suñu mbokk yi nga xam ne mu ñoo fi teewal presse bi euh, Fall nag euh, soxna si ànd ak délégation bi ñëw ziyaare si la ndax bis bi tey sa bis la ndax daaw mooy douzième édition bi ñu dem ci mission national bi di waxtaan ak bokki taalibe yi bi soxna si jëlee kàddu ba muy jeexal mu geesu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada ne ko Serigne Sidi mu wuyu mu ne ko damaa bëgg treizième édition bi ñu tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ngir bunt yi ubbeeku ngir Cheikh Ibrahima Fall mooy Babul Mouridina loolu ci làmmeñu soxna si la bàyyeekoo ñu nangul ko ko dem ci sa waajur di Serigne Cheikh jëm bu yëgal ko ko. mu ne loolu rafetlu na ko bu baax te joxe na ci ndigal yaakaar naa ne keroog bi ñuy séntu weer wi man maa doon def waxtaan wi bi ñuy def waxtaan wi foofu euh, jottali woon nañ fa yi ndax bis boobee sa waajur bu baax wa la ñu ko tuddee woon la ko tuddee woon nga teew fa teewaay bu rafet waxtaan fa waxtaan woo xam ne waxtaan wu am solo am solo la kon nag bis bi tey faal yow yaa ko moom yow nag sa taxawaay ci yoonu murit waa dafa mel ni dafa mel ni dañoo wax ne murit ci kanam sëriñam daa war a mel ni ab néew te néew du yëngu te li ñuy wax dañoo ñor moo tax bugguñu ko ko ruubee nañ déglu ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ma sëñ bi bis bi tey day sa bis ndax maam Cheikh Ibrahima Fall ci yoonu murit yaakaar naa ne kenn ku koy nattable jëfam ci sëriñ Touba amut moo xàll yoon wi moo ko leeral moo bëgg Serigne tubaa ba bëgg ko jafee bëgg ko nam bëggin woo xam ne kenn mus la gis ko sopp nit ba bëgg ko bëgg gu toll ni gi Cheikh Ibrahima Fall bëggoon Serigne Touba loolu moom ñëpp maase nañ xam ko moo tax Serigne tubaa daane wax ne ñi ma topp ñëpp seen diine dafa rafet sama diine dafa rafet ma gën leen rafet diine ñu topp ma ngir diine ju rafet waaye Ibra Fall moom su ma xëyoon bàyyi fii li yàlla ak Rasulullah santaane lu ma nekk mu ànd ci man kon nag ni ma bëggee ak ni mu ma gëmee wuute nag bëgg keneen ak gëmu keneen moo tax soxna si xam ne menn mbir mu ñu defal Serigne Touba Cheikh Ibrahima mënu cee ñàkk cëram moo tax mu ne Sarsara nañ ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall Babal Mouridine ñu tuddee ko nag nga teew fi mat fi teewaayu njabootu Cheikh Ibrahima gépp ngir sa taxawaay ci yoonu murid kenn dootu ko nattable yaakaar naa bépp barab boo xam ne Cheikh Ibrahima jaar na fa wala bépp barab boo xam ne bu ñu war a nemmee ko ci yoonu murid la wala bépp barab boo xam ne bu ñu fa demee yëkkati fa turu Seexul Xadim ku dem ca barab booba da nga fa dégg Serigne Cheikh Ndigal Fall barki démb yow ak soxna si yéen a daje Paris ci magal gañ doon def ca Sarsara ngeen def fa tiraanga ba ngeen fa defante nga wax ko ne ko da nga ma fekk noisot kon nak dafa wax ne mok delegation bi mu àndal mënuñoo bañ a ñëw jox le ciir bi nga amé ci bis bi ngir xam nañ ne te ya fi mam Cheikh ibrahim Fall Baaba Mouridine te mom mom ren magalu Sarsara moo ñu di la ziyaara bu baax Mbàkke eh, Fall di la ndokel bu baaxa baax di la xamal tam taxawayu soxna ci ci liggey bi nga gën ko ci ñaanal ndax mom bay Fall la ndax soxna mam Issa mbacke domi seigne Modou fatikhari la mbacke la sante waaye dégg nañ ci ay waxam muy wax ne moom mooy Baye faalu maam jaara te ba Serigne Touba ñëwagut Baye Fall amutoon kon nag yéen rek lay roy yéen rek la bëgg yéen rek lay xool seen aw doxin moo tax coono yi muy sonn yëpp ci liggéey yi mu di ko sonn di ko ànd ak yéen muy sàkku nag ci darajee sa waajur bu baax wa ci darajee sa maam ju baax ji maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine nga ñaanal ko bu baax a baax a baax ba liggéey bii moom mbooloo mi àndal liñ ci bëgg lépp Fall ñu am ko ni ko bëgg ci barkeb Serigne Touba di xamal ne. yow daal mboolem ñi fi nekk ñëpp am na ñoo xam ne wax nañ ko parce que euh, sëñ Moussa wax na ko am nañ occasion bi exploité nañ ko waaye ñi ëmb ci seen i xol bëgg sëñ Seex ndigal ñi nekk ci barab bi yëpp ñoom la ndax murid yi ñoom ku bëgg sëñ Tuubaa rek ñu bëgg la te nañ ne yow sëriñ Tuubaa rek nga bëgg maam Cheikh Rafal rek bëgg ñoom rek ngay liggéeyal gis nañ liggéey yu yi nga def ci Mbàkke Kajoor te sëñ sëñ sëñ Sidi Mokhtar sant la ko gis nañ liggéey yu ba yeneen yu rafet yi nga def ci yoonu murid yëpp ba ci ndogo yi ak leneen lu mën a doon lu ñuy jëfal sëriñ Tuubaa lu ne yaa cay jiitu yaa cay man ba baat bi nga xam ne mooy symbolise yoonu murid muy ndigal ñu taqale ko aw saw tur te lool dafa am solo ndax yàlla dane woon yonent bi wara wa rafanaa laka zikraka saw tur ak sama tur laay bokk yëkkati kon ndigal ni mu foore ci yoonu murid nga xam ne bokk na ci ñeenti sart yi sëñ Tuubaa tënke yoon wi kuñ ko dàkkantale di tudd saw tur di ko ca boole xam nañ ne yow murid dëgg nga Baay Faal dëgg nga Faal kon nag ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ñaan nag nga ñaanal mbooloo mi suñu borom defal ñu lay xamal ne tam ca barab boobee dañ faa tàmbali jumaa soxna si tam am liggéey boo xam ne da ko jota bokki taalibe yi waxoon ne leen dama bëgg ñëpp def ci seenu ñàq Mbàkke Faal ma lay xamal ne mbooloo mii toog lépp yow dalaa war a leer liggéey booba dajale nañ vingt 22 tonnes ci ndigalu soxna si jébbuleeguñ ko waaye bëgg nañ yow mu dugg ci sam nopp ndax lu ngeen yëg lu ne moo raw lu ngeen yëgut te faal tam bëgg nañ nga defal ñu ci ay soññe bu ko defee bokki taalibe yi xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek am solo te bu génnee ci sa kàddu yaakaar na ne danañ gaaw kër jëfe ko danoo bëgg sax bala noo dem sarsaara mu mat 30 tonnes te xam nañ ne boo ci dugalee sa kàddu dana mën a nekk faal kon lool mo nekkon cadeau yi nga xamne mom lañ la bëgguna a wax ñu ngi lay ndokkel ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu and ak wër ci barkeb Serigne Touba nga ñaanal ko tam bokk yu bax yi ak bokki talibi suñ borom dal xir yu ci Serigne Touba ñu bañ ko genn fenn suñu dund suñu dé suñu ginaaw bakkan suñu lepp ni Serigne Touba ndax lool rek ci lañuy amé liñ bëgg kon lool moy cadeau yi ñi ngi bax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh légui nak sëñ bi dafa wax euh ah, lool tam dama koy léral dafa am ñu wax soxna ci dañ ko inviter deux fois Paris wala trois tubaab bi ko invité soxna si ba muy dem yaakaar naa ne amoon nay xat-xat waaye dafa jaayanteeg sëñ tubaa dem waaye am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne soxna si dafa dem foofa pour ñu jox ko fa dara waaye yaakaar naa tubaab ba ko invité ba mu déggee rumeur yu mel noonu moom moo bind ab lettre ci loxo boppam waxal ko boppam ci internet bi ñëpp di ko dégg mu tegaat ko ci loxo Serigne Cheikh Ndigal mu nekk nii moo tax Serigne bi wax ne lettre boobu la bëgg jëwriñ ji liir ko ñëpp dégg Baye Demba ñu xam ne soxna maam Issa Mbacke dundewut Serigne Touba da koy dundal te yaakaar naa ne kuy kuy dunde Serigne Touba ak kuy dund Serigne Touba yomb nañoo xàmmee sëñ Cheikh ndigal mii ku ko gis xam ne li muy dox dundal yoonu maamam la ci jublu moo tax mu mel nii mu mel mu yi bëggee ko ni ñu ko bëggee ndax Serigne Bass Abdou Khadir nee na Serigne Saliou moo ko wax ne ko mbirum Serigne tubaa mooy xool ba xam nangu nañ ko nanguwuñ ko na nga xool nu ci xoli murit yi mel nu ci xoli murit yi mel nag bu dee dañ koo contre du mbirum Serigne Touba bu dee dañ koo nangu mbirum Serigne Touba la ñaari jàmbaar yi toog kii di Cheikh Ibra Fall kii di Cheikh Massamba di Serigne Touba ku nekk xam na ne yoonu murit ñëpp nangu nañ seen i mbir kon ñoom dañuy dundal Serigne Touba waaye dundewuñ Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu daani rajim bismillahi rahmaani rahim bi isni yi sëñ Cheikh Ndigal Fall nu ko waxee mooy bataaxal bi ki ñu wax sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bi nga xam ne ñooy def màgg bi ci Sarsara ci France lu toll fukki at fa lu ñu àndoon ak ku baax yi doog a ñëw fii moo bind bataaxal bi jagale ko moom soxna Issa kon nu bu waxee ko nu mu ko bindee salaamu aleykum chers condisciples je prends ma plume aujourd'hui pour rendre hommage à une grande dame que dis-je une grande soxna en la personne de soxna Issa Mbacké fille de soxna Ndeye Faye et Serigne Modou Fati Khary en effet en novembre 2014 Allah m'a pour la première fois amené à rencontrer cette femme infatigable, une travailleuse d'une bonté et d'une générosité sans pareil. Sorne Isse nous a adoptés, nous le Daïre Mourid Sadir. Nous sommes un petit Daïre composé de moins de 10 personnes et nous sommes désolés de ne pas pouvoir lui donner de gros adieux, surtout quand nous voyons l'ampleur du travail qu'elle accomplit et que chaque année elle vient par ses propres moyens, payant billets d'avion, aller et retour, Dakar-Paris pour nous offrir tout le café nécessaire à la réalisation de notre magal, sans compter la fatigue des heures de vol et de l'attente dans les escales des aéroports froids et lugubres. Je tiens à ajouter aussi qu'une fois parmi nous, elle est d'une discrétion sans pareil. Elle n'exige jamais rien de personne. Elle se suffit de ce que nous lui pouvons lui servir. Elle n'est pas hautaine ni ne pas à quelqu'un d'une manière désagréable. Je vois en cette femme, moi, Mohamed Lamine Barambake, le diorine de Daire Mourid Sader, organisateur du Magal de Sarsara à Paris, une vraie servante Allah, digne héritière de Khadim Roussoul. Je pourrais continuer d'énumérer pendant de longues minutes toutes les qualités de Sorné Issa, mais je m'arrêterai là, craignant de la mettre mal à l'aise. Pour finir, je prie Allah d'agréer son travail et celui de son daïra, le Café Touba. pour qu'elle reste devant nous avec une santé de fer et une longue vie. Lamine Mohamedou Lamine Bara Mbacké. tarkala jërëjëf ti Baye. xam bi sëñ Touba jëlee wirdu maxxus maamam Assane la ko njëkk jox mooy bëgg wax. min wizri dunya wa wizri al-akhira allahu yaghfiru dhanbahu ma la yabqa alayhi shay لأن من زار أحمد بن بن الصرصارة زار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل أهل الكتاب آه، آه، يتجول من آه، أهل ديمان كما قال حمد يقول كما كان يكون يتجول هنا من شيخ شيخ باب نعم. شيخ شيخ باب الشيخ بابا والشيخ سيد محمد والشيخ سيدي الكبير والشيخ نعم. سعد وابي نعم. والشيخ محمد فاضل المامي لما اتاه الشيخ احمد بن الحسن وهو جدي اتاه في الصرصاره وطلب منه الشيخ القديم ان يكتب كان يتجولان نعم كان معه كان رفقه نعم، له نعم. لان الشيخ احمد بن الحسن التقى بالشيخ القديم في ندر والتقاه هناك فسأل فسمعه يقرا القران فقال الشيخ احمد بن لبعض اتباعه من يقرا القران فقال له احمد بن الحسن فقال لهم الشيخ القديم انا دانيو داجي ندار موي جان القران سيغ توبا ني كي جان القران كان لا ني الشيخ احمد بن حسن موم بن داجي ندار فقال له هكذا انزل القران على رسول الله مو ني دي لاكو القران واتيوون طلب الشيخ القديم من آه، من احمد بن الحسن ان يكتب له مصحفا فكتب له 60 مصحفا نانا مو ساكو تي موم مو بيندل كو اي آه، آه، اي تيري مو بيندل كو جوروم بن فوك تيري فكان عند الشيخ مود المصطفى والشيخ محمد فاضل والشيخ محمد الامين والشيخ محمد البشير الشيخ عبد القادر والشيخ صالح جميع اولاد الشيخ احمد بومبا كلهم اصبحت حتى في المكتبه الكبيره عند مصطفى انا تيري يوي ني séddale ko doomi seigne touba yi bo démé ci maktabu seigne abdoulaye bi da nga ca fekk ku nek doomi seigne touba amon na ci juroom benn fukki téré وسبب لقاء الجد القديم كان في نجارين نينا نيكون لي لي داجيك مامام mamam مانام manam bi mi dekk nek في في جربل في البقعه المباركه. تي نياري موي بقعه المباركه لنجو تبدا. اتى الشيخ الحسن الى ولان جاريم. نانا باغا خامني شيخ الحسن نيو نجاريم. قال الشيخ الخديم لبعض اتباعه. موني غناو بامو ديكي. ان هناك الشريف. موني فوق. هناك شريف يقال له الحسن. نانا انا كوكو نيو نجاريم موكو مانام دومام لا ولا ستم بومكو لاجي نيكو انا الشريف حسن. الشريف حسن. قل له ان ياتيني. مونيكو من ني ما ديك maanaam da koo gisoon mu ne ko kama gisoon fee mooy فلم يكن يعرف الحسن الشيخ احمد بن بري انه اتى لهذه الارض لا يعرف فيها احد نينا دافا وني كان خمول كي سوف سوسو كو خامني خامنا اشن فلما أتى المريد إلى الحسن وقال له يريدك الشيخ أحمد بمبا قال له لعل الشيخ يريد غيري فقال له الشيخ محمد بن حبيب الله قال أنا أنا اسمك الحسن نينا نيو بكو خيب نيكو أه يو دال دكو خم نيكو ياب غيسن من دخكم ملني ودور مونيكو نيلن كم من ماي سيخ الحسن فلما دخل على الشيخ أحمد بمبا خادم الرسول قال له ألست الحسن مونيكو بمدقجي سنتبا مونيكو خنادو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو قال له نعم من أنبأك من كو من داي ماي ماي أسن من بأك من لان موي سخبار قال أنا ولي فراسة المؤمن وأظنها صادقة نينا ماي ولي خاني ماي تيم معنا ماي إيه, ناول دال فراسة ما معنا فراسة يعني الولاية كرامة ولي ماي ماي ماي موتلي كرامك ولي وانا أظن ان هذه الكرامه الصادقه كرامه جو خمن لو دغ صادقه فانشد فقال له يا حسن انت صديقي في الدنيا وصديقي في الاخره مونيكو يا حسن كات دغل nga ci aduna dugal nga fi alakhirah قال له ما علامه ذلك مونيكو كو لان موي سام ماندار ci لولو ساقول بيتين من الشعر ارحب بهما موني امنا بيت يو نياري بيت يو خامني waxon nako ci ñew yo xamni ni dañ ko xemam نرجو الذي ياتي منه الفوز والمنن أن لا يخيب ما ترجوه يا حسن واعلم بأنك خل لي وأنك لا ينساك لله مني السر والعافية. كي مو ميكون ياري بيد bayit yooyu dana dana la ko leeral ndax yow sama xarit nga ci lu wér. خليلي تي يلا والله صديقي في الدنيا وصديقي في الآخرة ولا أنساك في الدعاء في الدنيا وفي الآخرة وكذلك أنت لا تنساني في الدعاء مونيكو سما خارج في ادنا سما خارج تي الآخرة دوما لا فات موك في ادنا أك الآخرة فقال له الشيخ الخديم قال الحسن للشيخ الخديم اكتب لي بيتين في الورقة موني توبا نيكو بندل ما نياري bayit يوي تي تي كي اب كوي حتى اذا مت اموت تدفن معي في قبري نينا بامو فاتو ني داف كيد يويو كي خبرو السلام عليكم ورحمه الله يشفعه الله نينا باني سمكو تي لولو وعليكم السلام شفاعه ليوم القيامه نكو لي دفالنا لكم موسى سرمو يوم القيامه فقال له الشيخ قديم هو كذلك لك ولي نينا كوم نكو نونو لاكو سيني توبا نكو لك ولي يو امغا ولايه داو تي سيني توبا جيم تي مو گن داو جيم تي لين تبو گين سيتي نيغا خامني نيغي داو جيم تي ادنا Euh, dañ leen di fakastal ndax liñ leen di ñëk xañ moy bis bi amna ci ño xamne bu ngeen dello xalaat da na ñëw ci bis bi waye xañ nañ leen ko ngir seen bisu aduna yoy ci àddina la kilifa di xol ci bopam day xamni li jëraluma ngir ëlëk mhm. te al mawtu baabun wa kullu naasi daaxila sëñ Tuubaa ni yeeti baxtatan rubama man muxtariman chacha waxul kon bu nga xamee ni àdduna day bett dawal jëm ci lu baax bala laa dee bett kon ñu ngi leen di sant yéen kullu presse ndax lii mooy jottali monde bi te euh, sëñ Tuubaa dina dafay wax ne wa kullu man amarahum bihi jami ki nga xam ni day ñaanal bay ñaanal sonar doo ma doon def jumaa ji di digal mën wa kullu man aani wa alini wa ali kulli wa ali man yu'inuni wal takfini jumlata maa yoo xiinu sëñ Touba da don ñaanal ñi nga xamni ñoy doon ci jumaa ja ak seen kilifa même ngor sax sëñ Touba sëñ fallu ci la ko bolé ci way waw wa alini wa ali man yu'inuni wal takfini jumlata maa yoo gannaaw ni dimbilima dimbali ma koweel ki nga xam ni da daf may dimbali. Mhm. ci liggéeyub jumaa ji moo tax sañ Touba bi ko si nga war a nangulee. Mhm. moom itam mu dimbali ko ci àdduna jooju mënoon wut. Mhm. kon nag nun li ñuy yaakaar muy jëm ëllëg. tax ñu ñëw fii ci ñëw Sarsara. yàlla na ko sëñ Touba saxal ci ñoom. defal ñu ci ndam defal leen ko. ina lazina ila Sarsara xat xasado. siyaarati faaraxoo daarin aw saara. yàlla na ko sëñ tuubaa defal ci ba faw. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa